ñibbisib Karim Wade fii ci diwaanu Sénégal loolee Amadou Wade daal dina ci yëy yàppi li mu xam ne mooy gisul lan moo war a tax kii di Karim Wade ñàkk ba ñu ñëw fii ci réew mi maire Amadou Wade nekkoon nag ab responsable politique ci parti démocratique sénégalais tey jii nag mu daal di transhumé maanaam jóge ci PDS dem ànd ak nguur gi dellusiwaat na nag ci mbiri ki nga xamante ne moom mooy Karim Wade jàpp na ne nag Karim Wade mën na dellu si ci réew mi bu ko neexee mu ngi ko xamle ci émission Grand Jury bu doon am rajo Futur Média gisuma benn raison particulière bu mën a tax kii di Karim Wade mënul dellu si ci réew mi ndaxte fii mooy am réewam Qatar du ab dëkkam loolee la xamle bëgguma nag wax lu bëri ci mbiri Karim Wade ndaxte moom sax ab position am dafa daal di rek simple te nag bëgg naa ko ko respectel nee na nag bëggul ñu daal di koy amnistier li mu xam ne mooy ab atteem dañu ko war a réviser te nag loolee respecté naa ko dama ko koy nangul Maître Sall moo daal di xamle li ni mel.